ci cees ak ci Sénégal positionnement xam nga ni am nañu ligne boo xamante ni ci évétement yu mag yi dañuy revenir ci li xew ci dëkk bi Thiès li xew ci réew mi ak li xew ci àdduna bi ba sa su évétement amee Sénégal yëpp dañuy bàyyi xel mu Moussanté di nuyu imam Babacar mu jiite ñu tey di un grand intellectuel euh, bu lucide bu très courageux euh, du tey la jëf jëkk jël prise de de position mu wax euh, ca aussi ñu mën a nangu ñëpp ñuy liggéey ci seen xel ni dëkk moom ci jàmm ak dal lañ koy tabaxe développement ci jàmm ak dal lañ koy tabax kon jàmm ak dal ci la sécurité ñëpp nekk ci la sécurité réew nekk ci la sécurité askan nekk loolu moom mooy mooy di dëgg surtout suñu dëkk yu fragile yi suñu état yi nga xam ne encore très très très très très très fragile loolu imam bi ñëw ci lu bëree bëri ñaax ci askan wi ñaax ñaax ci xale yi ay yàqu-yàqu yu amoon université mu ñëwaat ci loolu aussi man en tant que universitaire mën naa ko ko nangul parce que jàpp naa ni amu fa place très sincèrement lu toll nii université euh, bibliothèque euh, kenn du fa dugg di fa def jëf yu mel noonu loolu kuy wax dëgg ci ñeme dëgg loolu da nga koy condamné c'est ça vérité de euh, des des de des faits c'est ça aussi la vérité yooyu yëpp imam ñëwaat ci euh, donc mu nekk yoo xamante ni ku ci nekk ak ci sa jàngat euh, ma bëgg ci yokk rek peut-être loo xam ni suma commentaire personnel la mooy jàmm ci la lépp xaj ñun ñëpp moom lañu ñu war a wuti rawatina suñu réew yi mais am na loo xamante ni aussi mën na dimbali jàmm te day dimbali jàmm mooy ak njub mooy ak maandute mooy dëgg ndax euh, bari na réew yu yëngu bari na société yu yëngu li nekk ci baasu yëngu-yëngute boobu mooy ay njubati yoo xam ni dal na ay doomu aadama ba ñoom aussi ñu yaakaar ni euh, li dal ci ñoom du ak maandute ñoom it ñu am ñu ko ko jiima faje euh, société yi ñu bëgg a tabax dañ ko war a tabax ci jàmm changement yi ñu bëgg ci réew mi dañ ko war a tabax ci jàmm ak dal parce que man gëm naa ni mën nañu transformer suñu institution yi transformer suñu réew yi ba mu méngoo ak bëgg-bëgg ndaw li liñ ci bëgg mais ngi def ko ci jàmm ak dal loolu dama ko gëm c'est ce que j'appelle la stratégie de pénétration des institutions mën nga am projet parce que y la stratégie de pénétration des institutions ou de destruction des institutions destruction des institutions c'est un chaos c'est avec conséquence yi euh, c'est plus lourd tabaxaat mais pénétration des institutions soo amee possibilité pénétration des institutions par exemple position bi ma nekk en tant que maire mais projet de transformation bi nga am donc ko war a feeñal ci liggéey bi ngay def parce que yaa ngi ci une institution nga wane ko déjà moo tax mooy wax stratégie de pénétration des institutions ñu transformer institutions yi améliorer institutions yi orienter institutions yi ba institutions yi méngoo ak bëgg-bëggu askan bi wala méngoo ak bëgg-bëggu réew mi yaakaar ni loolu mën nañ ko tabax ci ci ci jàmm euh, mais transformation yooyu yëpp ñu bugg euh, li nga xam ne moo ñuy may une paix durable li ñu ko li ñu koy may mooy un état de droit un état de droit c'est fondamental bu état de droit amul tey jii li ngay am muy nuru jàmm wala muy nuru stabilité tout ou tard dafay effondré wu dafay effondré moo tax c'est fondamental ñii insister ci jàmm évidemment paradigme bu am solo la axe principal la surtout suñu réew yi jàmm jàmm jàmm mais lii renforcer jàmm jooju di dëggal jàmm jooju mooy ñu renforcer état de droit ba réew mi ku fi yeewoo rek nga xam ni am nga fi droit am nga fi ay devoir am nañu nu ñu organiser réew mi noo xamante ni bu fekkee sa ak salfaañe nañ ko boo demee ci tribunal tribunal dina la mën a déglu joxe verdict boo xamante ni boo ñibbee di nga jàpp ni verdict bii de tegu na ci ak njub tegu na ci ak maandute mais bu état de droit amul ci boppam réew bu mu mënti doon société bu mu mënti doon nag laa la wax ci boppam bu fekkee am na ñu fay yeewoo ñu jàpp ni lenn ci seeni àq ñi ngi koy salfaañe ci tribunaux yi nga xamante ni ñoo jiite wala ñoo waroon di addu ci diggante ñooñu pour joxe ay verdict yoo xamante ni ñooñu dinañ am fu ñu ñooñu am fu ñu jooy lu leen metti verdict yooyu dina méngoo ak ñoom li nga xam ne mooy mooy ak njub ak maandu te bu loolu amul bu loolu amul ay yëngu-yëngute ay ay mën na am mën na am ci ci ci réew mi. monsieur le maire bu ñu la dafa mel ni euh, li nga xamante ne moom ngay wax dafay xaw méngoo un tout petit peu bi nga xamante ni moom lañ joxe ci euh, la condamnation de Ousmane Sonko mi nga xamante ne moo juróon manifestation da nga jàpp ni yoon euh, li nga xamante ne moom lañ joxe comme décision dafa dafa dafa dañ ko tegul ci dëgg. du Ousmane Sonko rek. c'est plus complexe la corruption des institutions au Sénégal ci affaire verdict Ousmane Sonko soo ko yamalee rek rek analyse bi mën na superficielle peut-être loolu moo actuel mais képp kuy waxal dëgg te xool Sénégal ni muy doxee ci at yu mujj xam nga ni institution ay rëq-rëq yu mag a mag mag laal na leen rawatina ci justice ñëpp xam nañ ni justice réew mi ni muy doxee ci boppam. teguwul ci ak maandute teguwul ci ak njub teguwul ci respecté ak yelleefu doomu aadama yi justice la boo xamante ne li ci ëpp dafay dox ci bëgg-bëgg ñi nga xamante ni ñoo jiite réew lu ñu indi ci dialogue bi tey procès Karim Wade nan la mujje procès xalifa Ababacar Sall procès Ousmane Sonko ay procès politique yoo xamante ni dañ ko def pour éliminer ay adversaires politique changer la loi électorale dugal ci dëxañ ci yoo xamante ni sorte d'épée de Damoclès la ci classe politique bi trois mois bu la ko condamné par sursis six mois par sursis tu n'es plus électeur tu n'es plus éligible yooyu ay xeetu mécanisme la yoo xamante ni foo gis mu dox mu am ci système régime politique yi ñu am li ci ëpp c'est des régimes yoo xamante ni ñi ko jiite ci démocratie lañ jote ci ci nguur yooyu maanaam c'est des présidents élus c'est des premiers ministres élus c'est des régimes démocratiques mais président yooyu buñ ñëwee au pouvoir dañuy basculer vers l'autoritarisme bu jëkkoon coup d'état militaire moo ko daan def mais dañ dem ba seetlu ci àdduna bi ni démocratie dañuy nërmeelu dee ci loxo ñoo xam ne duñ ay militaire duñ ay généraux yu def coup d'état de jël institu daaneel institution yi c'est des gens yoo xamante ni dañ leen a fal mais biñ leen falee bu ñuy ñëwee dañ nërmeel institution yi toog xawal ay mécanisme yoo xamante ni da leen di may ñu mën a contrôler opposition bi da leen di may ñu mën a contrôler lépp luy manifestation ci dëkk bi da leen di may ñu mën a contrôler les médias yooyu dafa am ay borom xam-xam yu mag a mag a mag yu liggéey ci adduna bi ci science politique yoo xam dañ ci liggéey carrément ñi xam ni démocratie dafay basculer vers l'autoritarisme profilu ñi nga xamante ni ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo inauguré ère boobu soo xoolee suñu dëkk yi ni muy doxee da ngay xam ni oui le président Macky Sall a été élu évidemment c'est un régime démocratique ci wàllu tur mais ci wàllu doxalin li am Sénégal ci liberté de presse mosu fi même temps wu parti unique amu fa woon xoolal actuellement ce qui se passe dans ce pays li am Sénégal ci wàllu manifestation je parle même pas de projet mais cest dire ay Sénégalais yu bëgg a def manifestation aujourd'hui simplement simplement c'est extrêmement difficile de voir le préfet de Dakar wala accepter leen ko une simple manifestation xoolal loolu yooyu yëpp dafay wane ni quitté nañ démocratie pour dugg ci autoritarisme alors feetu tabaski xam naa dañuy ñëw ci kanam tuuti ci dialogue national bi ak li nga xamante ni moom mooy discours du président bi nga xamante ni daanaka ñu bëri ñu ngi koy xaar waaye laata loolu dañuy dañuy waxtaanee Thiès d' abord ak li nga xamante ni noonu ñooy tabaski yow en tant que maire sa population bi. woy ci dal ci jàmm Thiès moom c' est une très belle boo xamante ni affaire événement yi bu ñëwee aussi dañuy yëngu lool démb embouteillage yi bari woon na torop dama génnoon. Euh, avant-hier aussi amoon ay embouteillage amoon na ay accident yoo xamante ni am na lu ma ci jàngat man aussi sànq sax imam mi ngi ci interpellé sur la mobilité mobilité à Thiès fekk na ci ñi ciy liggéey ci projet bërki démb altine bi passé maa ngi woon école polytechnique euh, le directeur de lécole école polytechnique ak staffam euh, recevoir ma ngay xool une ville comme Thiès amul feu tricolore et au lieu ñuy dem Europe engagé beaucoup d' argent ci yoo xamante ni peut-être eh, ñu xalaat ni mën nañ liggéey ak école polytechnique ils nous ont proposé ay feux yoo xamante ay adapté wu à la cité à la réalité de Thiès et donc démb ci merc àllarba bi sax la ñu waroon a ñëw à la mairie présenté ñu feu bi nga xamante ni ñoom concevoir nañ ko donc pour ñu liggéey ci pour au niveau de Thiès kon xam nañ ni Thiès am nañ ay problème mu mobilité bu bu baax a baax mais laneen li nga xam ne bëgg naa mu accompagner problème mu feu yooyu tricolore yoo xam bëgg nañ ko indiwaat Thiès ci yenn axe yu mag yi nga xamante ni yenn trafic bi dafay dafay metti mooy benn corps de volontaire boo xam ne bëgg nañ ko mobiliser cinquante cinquantaine de personnes yoo xamante ni wut ay L200 ñu am mobilité nga xamante ni yenn heures yi aussi dinañ mën a aider parce que bërki démb dama yem ci benn accident euh, fii ci euh, route euh, avenue El Hadj Omar bi guddi woon na Euh, du policier du kenn population yi ñoo doon débrouiller mu indi fa embouteillage bu monstre mu mujj gaari sama oto ñëw woo sapeur pompier toog foofu ak ñoom jàppale population yi pour ñu organiser circulation bi j'ai dit mais évidemment police amul effectif wu nekk fépp sa cela cela va de soi donc mais ñun au niveau de la mairie si on avait encore cinquante jeunes ñu def liggéey ak police ñu former leen ñu sol ay gilet plus les feux mais huit heures bu xale yi waree jàng ñu mën nañ nekk tali bi ñu aider xale yi à traverser y des accidents avec les deux roues yu demee noonu yenn heures yi yenn trafic yi dafay métti yenn accidents yi su amee donc ñoom dinañ mën di def ay ay ay ronde di circuler dans dans la ville donc il y a de cinquante volontaires yoo xamante bëgg naa leen recruter ñu am deux ba trois L deux cent mobile L deux cent dans la ville dañuy circuler ba yenn heures yi même yenn heures yi dina am benn boo xamante ni euh, dina nekk dina dina mën di veiller donc laa nuit yooyu yëpp kon euh, ñi ngi ci liggéey bon Thiès euh, projet yi bëri na évidemment bi ñuy ñëwee situation bi ñu trouvé ville bi du ma ci du ci ñëwaat mais jàpp naa ni bu ñu yàlla dimbalee am na lu Thiès gis mais li nekk ci ginnaaw comme yéene comme projet comme projet moo ëpp actuellement mën naa ci lim ñaar ba ñett. xam naa dinañ projet yooyu mais d'abord ah, ci mairie bi monsieur mën a wax ci li nga xamante ne mooy gestion ak euh, population bi dans sa dans bon <laughs> li ma ci mën wax mooy euh, Sénégal moom bëgg nañ changement nit ñi sooy déglu rajo yi di déglu seen waxtaanu grand place xale yi fugg bi dangay gis ni bëgg nañ changement mm-hmm. mais en réalité. aussi bu ñu demee ba ci réalité pouvoir rattraper ñu ci responsabilité da ngay xam ni nit ñi aussi parewuñ pour le changement pare wuñ pour le changement ça je ah wuñ pour le changement ci ay discours rek la yam sa ça je pense que loolu mën naa ni constaté naa ko il faut beaucoup de courage pour aller vers le changement et mais am na leneen aussi loo xamante ni jàngaat naa ko ci euh, mooy man. bi sama petite expérience de maire daf ma gëm ni suñu dëkk yi mën nañ changer euh, suñu dëkk yi mën nañ changer parce que boo nekkee maire d'une ville comme Thiès nga am accès ci yenn nii nga xool en terme d'orientation da ngay xamante ni en vérité suñu dëkk yi liggéeyuñu waaye ah. liggéeyuñu oui mais regarde un pays comme le Sénégal euh, euh, li fi di besoin ci ay salle de classe yu ñu war a tabax ci ay jàngalekat yu ñu war a recruter ci personnel de santé bu ñu war a recruter ci wàllu mbay jàppale gu ñu war a jàppale baykat yi pour atteindre suffisance alimentaire ci wàllu sécurité ci wàllu chômage jeune mais regarde l'état de la gouvernance au Sénégal les scandales tant qu'il y aura la possibilité à di ministres dugg ci ay scandales yu ñuy wax ay milliards ca du mujj fenn on ira nulle part tant qu'il y aura la possibilité à des directeurs généraux dugg ci scandale mais regardez les rapports du temps de Macky Sall bi mu ñëw regardez scandale yi fi jaar ci dëkk bi si on arrive à avoir une gouvernance boo xamante ni moo tax je dis la lutte contre la corruption il faudra être impitoyable sur cette question là si on veut développer ce pays. la mairie? Ah, je peux pas dire c'est cas je peux pas apprécier personnellement li ma mën wax mais les Thiessois ak ñi may liggéeyal je pense que mën nga leen approcher ñu def seen appréciation à ce niveau euh, li ma la mën a seedeel quand je me réveille le matin pour aller à la mairie il y a une seule chose qui guide mes signatures et mon mouvement c'est l'intérêt de Thiès c'est pas des intérêts particuliers c'est pas des intérêts individuels l'intérêt de la ville de Thiès et je me battrai pour défendre l'intérêt de cette ville de de, de lu ñu mën pour yaxanal alalu Thiès jàpp naa ni ñu ngi koy def ba alalu Thiès jooju delluwaat ci doomu Thiès yi mais mu bañ a nekk ay détournement d'objectif détournement de deniers publics yoo xam ci poosu maire lay dem wala ñu wër maire ah bon loolu je peux pas dire mënuma àtte suma bopp mais yaakaar naa ni def nañ ci ay jéego yoo xamante ni bon ñu war a apprécier ils pourront apprécier à ce niveau. en termes de réalisation. oui bi may bi ñuy doog a ñëw suñu espace public yi ñu amoon yëpp dañu ko confisqué woon au niveau de Thiès moo tax chaque jour damay tooñ ma ni Thiès nous on tellement fiers Thiès deuxième ville du Sénégal j'ai dit mais en vérité y pas de ville ici. c'est une ville fantôme ville boo xamante ne amul espace public ville boo xamante ne amul éclairage c'est une ville et aujourd'hui on a engagé une bataille muy espace public yi nga xamante ni dëkk bi moo ko sax boo fa defee day am pénc village kër gu mag sax boo fa demee da fay fekk ëtt mais on ne peut jël espace public yi nga xamante ni dëkk moo ko moom pour noy parce que dañu war a créer ay espace public ay espace vert ay espace de vie démocratique waxuma espace de vie yoo dañ koy privatiser mais espace de vie yoo xam dañ koy démocratiser nga xam ne xale bi amul ñaari dërëm bu ko neexee ànd ak ay copains ñu ñëw doxantu bu ngoonee ñu ñibbi donc espace yooyu yëpp dañ ko occupé woon privatiser ko yu ci bëree bëri tey ji récupéré nañ leen Micheland c'était un jardin public boo ni tubaab bi moo ko fi defoon ñu privatiser ko on n'est même pas capable de gérer un jardin public ca li ci métti c'est devant la mairie soo amee ay hôtes parce que nous à la mairie dañuy am gan gu ne dañuy am ay ambassadeurs États-Unis France Russie l'ambassadeur de Russie yëpp da nga am gan yu ma mi imaginez jardin public bi nekk ci devanture mairie bi jardin public boobu boo fa demoon tey jaar fa sa yaram day daw demal nga xool jardin public bi nekk wetu gouvernance kër gouverneur demal ay buujumaan ak nit ñoo koy fréquenter et pourtant autorité bu ñëw Thiès da ngay seeti gouverneur nous on est même pas capable de gérer des, des espaces publics et on se dit que nous on est des mairies on des maires j'ai une bataille pour récupérer espace public yooyu attaqué nañ ma ci coow li bari na ci dem nañ ci justice Mikelaan bi ñu demee cour suprême parce que bi ma ko jëlaatee ñi ko moomoon dañ ma yóbbu cour suprême bi ñu demee cour suprême cour bi mu ñëwee ma dëggal donc yeneen yi c'est des grandes entreprises yoo xamante ni Thiès daf leen louer ay espace yoo xam ni Orange occupe 1000 mètres carré de la propriété communale CBAO 800 mètres carré de la propriété communale li ñuy fay jaaykatu jën sax boo ko ko dëpp et depuis 2002 2003 plus de 20 ans d'expropriation, d'exploitation, de surexploitation, de domination. De domination. Nous ne pouvons pas Et aujourd'hui, on a engagé la bataille de renégociation de deux choses l'une. Renégociation de contrat wala ces abal voilà, de toute façon, heureusement que l'entreprise Uberi, savent li ñu nekk du dëgg du yoon évidemment et aujourd'hui avec nos avocats donc on est dans les processus def nañ ci ay ay am na ay propositions contre propositions et donc yoo xamante ni dernière en date c'est Orange que le lundi euh, donc def nañ propositions yu ñu wax euh, propositions yooyu ñun rejeté nañ ko nee nañ ñoom ñu delluwaat Dakar pour defaat de nouvelles propositions donc à ce niveau les on les attend donc mu am voilà c'est ci yooyu yëpp muy Orange muy CBAO muy université soo jëlee université de Thiès bi ñuy ñëw di installé siwu dañu amoon nañu jafe-jafe espace ak seeni amphithéâtre yu bëri euh, parewul woon donc ñoom ñi bindoon le maire de l'époque Idrissa sec pour mu jàppale leen euh, soo xoolee am na donc benn auditorium bi ñu nekk Euh, auditorium bi nga xamante ne ñoom nañ nekk ville de Thiès moo ko may c' est le titre foncier TH 6000 c' est 12000 mètres carrés bu nekk Randoulène bon ñun ñu abal leen ko et quand je suis arrivé j'ai demandé à à l'université que l'université développé wu na entre temps ils ont des infrastructures et je pense que euh, jot na ñoom état du Sénégal tabaxal leen ay infrastructures ñu dellu. biir université mais ñun ñu delloo ñu suñu propriété bi ma demande bindee lettre boobu je n'ai pas été compris lu ne dégg naa ko ci les syndicats m'ont insulté saaga fii presque def ay sorties virulentes à ce niveau mais dëgg rek mooy dëgg aujourd'hui j'ai reçu la semaine dernière une lettre du gouvernement du Sénégal qui s'est engagé à restituer à la ville de Thiès son patrimoine et engagé wu na trouver un budget de un milliard et quelques pour tabaxal université amphithéâtre université ñibbi ndax foofu moo doon cinéma amitié vous vous souvenez ku dëkkul Thiès aussi bu nga dégg cinéma amitié Thiès était la capital du rail mais était la capitale culturelle du, du pays la capital du cinéma foofu la ñu bëgg a reprendre et c'est c'est cet espace là c'est douze mille mètres carrés Thiès presque ñàkkoon nañ ko à ce niveau mu am beneen boo xamante ni moo peut-être jamono bi moo moo moo lëmbee réew mi waaye ici à Thiès muy Kajoor Glace le débat de Kajoor Glace mooy li bees au niveau de Thiès euh, Kajoor Glace benn entreprise la boo xamante ni donc ñoom ñi ngi implanté wu ci promenade des Thiessois ñi ngi occupé mille dix huit mètres carrés mille dix huit mètres carrés ñi fi nekkoon joxe leen ko moyennant cent cinquante mille francs waaw yaa yey tekkiwaat say weer xoolal cent cinquante mille dix huit mètres carrés mille dix huit mètres mille dix huit mètres carrés def seeni chiffre d'affaires bi mu ñëwee je les ai hmm, wax ni leen dinañu leen bàyyi ngeen continuer seen activité mais bu contrat bi jeexee su contrat bi jeexee contrat bi duñu ko renouveler contrat bi jeexee contrat bi duñu ko duñu ko renouveler euh, yàlla def na contrat bi jeex na ci fin mais bi 31 mai 1er juin bi contrat bi contrat bi mu jeexee mu bind leen ne leen contrat bi duñu ko duñu ko renouveler a ah, mais gens dem mobiliser ku ñu mën a mobiliser di lobby conférence de presse ñenn ñi sax dañuy marché ce que je dis mooy dañuy réhabiliter la promenade des Thiessois espace public yi nga xam ne la ville bi moo ko contrôler dañ koy réhabiliter ba ci agora bi jël avenue Caen bi yooyu yëpp dañ koy mais maintenant ñi seen contrat jeex dañuy jóg ñenn ñi seeni contrat jeexul sax dama leen yëkkati ñi daawul fay am na ci ñoo xamante ni bëgguma tudd seeni tur parce que d'accord nañu jog tranquillement ay borom ay kilifa lañ ci dëkk bi ñu yoroon mille quatre cent mètres carrés di ay kilifa occupé des espaces yoo xamante ni un franc daaw ñu ko fay ay restaurant yoo xamante ni dañ ko jox ay nit depuis 2004 ñiy exploité di jaay ca un franc mosuñu ko versé du Kajoor Glace rek ay restaurant am na ay restaurant yoo xamante ni dañ ko leen ko jox ubbi leen ko ñuy jaay donc tous ces gens la dañuy jóg muy restaurant yi dañ koy tëj muy espace yi ko occupé dañ leen di yëkkati muy contrat yi nga xamante ni dafa jeex muy contrat Kajoor Glace bi ce contrat là ne sera pas renouvelé incha allah ça je je je je je veux cette question de Kajoor Glace je ne compte pas renouveler le contra de Kajoor Glace loolu coow li bëri na li ñu leen wax mooy mën nañ leen a jàppale jaay glace ngeen bëgg jaay glace jafewul ku bëgg jaay glace la ñu leen au niveau de la mairie. wutal leen faneen la on est disposé mais je pense que suñ jàppee ni coow ak pression marche sitting saaga maire wala mobiliser ay lobby mooy tax ñu toogaat ci espace boobu ku leen ko wax da leen di nax waxu leen dëgg je pense que gentiment encore je j'invite euh, le promoteur à revenir à la à la raison parce que ça ne changera rien du tout débat yokk ak coow mais du changer lu bëri sur la position du maire sur la position du bureau municipal et, et du conseil municipal donc au niveau de au mais ñu am ay projets yoo xamante ni euh, soo xoolee au niveau de l'éclairage public on a déjà réalisé des choses aujourd'hui toutes les grandes artères de Thiès éclairé nañ ko muy avenue Caen Ousmane Ngom Jean Collin euh, promenade bi di docteur Dieye di Serigne Mour ci avenue Serigne Mourtada Mbacké euh, Cheikh Oumar Foutiyou Tall Serigne Saliou Touré ak yenn quartier populaire boo demee balaa Balabé 2 euh, yenn ci côté parcelle yooyu yëpp marché central bu Thiès ni mu lëndëme woon donc euh, tous tout at yooyu yëpp donc Houphouët-Boigny yooyu yëpp aujourd'hui éclairé nañ ko ak yenn quartier ñi ngi waajal deuxième phase bi altine bi passé dañ def ouverture des plis on a lancé un marché de 175 millions et ça destiné au quartier populaire parce que li ñuy viser mooy la couverture universelle en éclairage public couverture nous comptons mettre 200 millions chaque année ci éclairage public Thiès waratul am benn espace dans la ville de Thiès boo xamante ni ku amul amul lampe la nuit te loolu yaakaar nañ am les moyens parce que je vous donne l'information le PACASEN de cette année Thiès moo jiitu on est arrivé au Sénégal ñoo ci jiitu on a eu 81 points sur les IDP donc soo xoolee ci jigéen ñi au niveau de Thiès ci jigéen ñi on a mobilisé on a un projet de de de de de 200 millions de financement des femmes pour l'autonomisation économique 200 millions on va on va financer 120 groupements groupement bu ne 10 personnes chaque groupement dina recevoir 1 million donc soo xoolee mutuelle de santé boo nekkee maire. ku nekkee ñëw indil la ordonnance jënd ordonnance euh, rajo euh, yu ay situation yu pathétique yu pathétique ngay rencontré et vous vous compte que amul benn politicien bu mën a jënd ordonnance population mënu ne il faut des des des réponses institutionnelles réponse institutionnelle yi nga xamante noonu gis naa ko mooy ñu créer benn mutuelle de santé communal bu dëgër au niveau de Thiès boo xamante ni dinañu jàppale nit ñi ñu bind ci ci mutuelle boobu euh, mutuelle boobu pour la première année la mairie s'est engagée à inscrire 5000 cinq mille familles parce que pour la la mutuelle il faut mille cinq 3500 de cotisation mairie bi moo lay cotiser 2500 yow 1000 francs ngay cotiser 1000 francs et ça c'est de l'argent disponible du ay wax yoo xamante ni soo xoolee ci wàllu formation ci wàllu formation ak euh, ndaw ñi suñu première année bi def nañ ci vingt millions. signé nañ vingt trois conventions avec vingt trois établissements lu toll ci presque six cent doomu Thiès ñi ngi bénéficier wu ci bourse yooyu di jàmm lu musul am Thiès un bureau des bourses la dernière fois bi may voyagé dama rencontré le directeur des bourses euh, au niveau national je lui ai dit que même dafa bëgg mu jàppale ñu au niveau de Thiès que dans les années à venir ñu mën a joxe même de bourses étrangères ay doomu Thiès même bu dee symbolique dix vingt trente ay doomu Thiès yu mën a dem jàngi boo ëllëgee ñu ñu mën a ñëw tekki ci ci ci dëkk parce que les grandes municipalités dañ koy def mais pour man la vocation de Thiès que war na mën a non seulement ñu parce que li ñu def ci étudiants yi ren ji cent vingt millions yi l'année prochaine dañ ko bëgg a doubler dañ ko bëgg a doubler dañ ko bëgg a doubler donc beneen année bi dinañu tenter jox ay bourses noonu lañ ko defee ci wàllu sport on va revaloriser la coupe la coupe maire ren on a prévu pour équipe yi nga xam ne représenté Thiès ci ligue bi on a une enveloppe de dix millions boo xamante ni l'argent pare na donc les les les les associations des des des délégués de quartier qui n'ont jamais reçu de subvention annuelle on a fixé une subvention annuelle pour ñoom les imams une subvention annuelle toutes les associations handicapées de Thiès toutes les associations yi inscrites au niveau de la mairie recevoir une subvention annuelle annuelle am nga activité nga ñëw ñu jox la ay miir ak maire jox la cinquante mille nga dem naan maire gërëm nañu subvention parce que ils ont droit à ils ont droit ils à à yooyu yenn la ci yoo xamante ni mën nañ ko feeñal pour tabaxaat une nouvelle ville de Thiès une ville ambitieuse une ville boo xamante ni dina méngoo ak ñun Thiès waaye li nga xamante ni mooy suñu yéene ci dëkk ci dëkk boobu. lancé na ko mais mu war a amal li nga xamante ni moom mooy discours la nation nee bu tabaski passé la ci la ci ñëw lan looy xaar ci li nga xamante ni mooy discours boobu la. Euh, bon li ma ciy xaar rek mooy président yàlla nañu bett hmm. euh, bu ma nee yàlla nañu bett mooy daf daan jël ay engagement yoo xamante ni daawu ko respecté daan nañu indiqué ay direction yoo xam ne daawu ko respecté moo tax ma ne na ñu bett. ba li nga xamante ni moom la askan yu bëgg di ko xaar ci moom ci surtout question yu mag yi yàlla nañu ci bett muy le troisième mandat d'abord man bokkuma ak Macky loolu ñëpp xam nañ je peut dire sooy wut opposant radical a Macky ñëwal Thiès ñëwal ci man radicalité nag du violence Sénégal ñàkk xam-xam weesu na nit yaakaar ne boo nee radicalité rek mooy saaga xët-xët violence bu ko dàkk ñooñ ñooy radicaux dañuy dañuy faral di jëm ay projet ngeen euh, ah. bu ñëwaatoon suba sax ma teraanga ji yokk. ah waaye moi je suis un républicain. Macky Sall xam na ni man amul sama njëkk. man aw ma njëkk moom ci boppam xam na ko ñi ko wër xam nañ euh, dafa am ay nit yoo xamante ni bi Idrissa Seck euh, bougé peut-être am jafe-jafe ak Macky ci eh, génn eh, ñam ñu ma approché ni ma wuy est-ce que tey jii bu fekkoon conseil économique et sociale a intéressé woon na la est-ce que mënuñu manœuvrer parce que am na ñu ci bàyyi xel nii bu ñu la amoon le système de la paire au pouvoir je dis Sall amul lu ma mën a jox man il ne yàlla rek ak la peuple sénégalais ñoo ko am du ay poste ministériel du poste ministre d'État du poste institution politiquement yàlla jox na ma loo xamante ni je ne peux plus être malheureux au plan politique Dans ma carrière politique, être maire de la ville de Thiès, c'est un privilège. C'est un grand honneur. Être au service d'une très grande ville comme Thiès. Une ville dirigée par Léopold Senghor, dirigée par Ousmane Gom. Être maire de la ville de Thiès fait que je ne peux plus être malheureux. benn station politique rek moo mën a dese bu gën a kawee boobu ci au plan politique benn stade rek. benn place politique rek moom mu mën a dese dans ma carrière boo gën a mën a kawee plan muy et président de la république amul laneen parce que mbir yi du du du l'argent c'est pas de l'argent et c'est c'est passionnant d'être maire de Thiès de vivre dans un quartier populaire d'être en contact direct avec les populations seeni souffrance seeni jafe-jafe nga xam ko nga xam ne koo xam ne da nga koy may benn mille francs mu mën ci togg añ wala togg ci reer wala mu ni la nga mën a je dis métti na la pression évidemment mais c'est très passionnant parce que on peut être au service des population dimbali ñu néew gi doole gis jigéen bu nekk ci jafe-jafe gis xale bu nekk ci jafe gis jigéen boo xamante ni dafa bëgg doomam jàng nga mën a être utile à ses côtés nga jàppale ko gis population boo xamante dafa bëgg dëkkam changer ci boppam ñi nekk dans l'obscurité totale nga démerdé wu en tant que maire ba taal ay làmp nga créer ay espace de vie xale yi ñu mën a génn promenade la nuit xale yi mën a génn di fo nga man ñi jël seeni velo nga jël handicapé yi moteur yi di di jouer et ça je dis rien loolu moo ëpp doole ay milliards loolu moo ëpp doole ay milliards c'est pas de l'argent c'est pas ay poste c'est pas ay villa c'est pas ça qui du ay ay oto yu bëri c'est pas des voyage ay c'est pas ça qui compte ce qui à la fin ñun ban njariñ lañ mën a amal mën a amal suñu suñu dëkk maintenant président de la république du man maa ko président de la république c'est une institution on lui doit de respect man d'accorduma ak président Macky Sall mais du tee ñàkk d'accord googu ma teg ko ci ci ci ci ci ci ci ci teggin wax ko ko xam na ko parce que yàlla suñu borom ba muy yónni yonti yàlla Moussa mais yonti yàlla Moussa yonent il porte un message prophétique du ñun du keneen yonent la ku yàlla yónni muy dox yonentu yàlla mais yàlla ba mu demee ci Firawna mais da ko ne boo demee na nga wax ak moom waxin wu teggin mais jë qui envoie à son prophète di ko yàpp ni ko boo demee na nga wax ak moom waxin je dis c'est une institution je lui dois du respect au niveau de la mairie soo ñëwee tu trouves la photo institutionnelle de président Macky Sall et pourtant booy wut opposant radical de Macky Sall ñëwul ci man foofu laa bëggoon wax nii man j'ai pas de problème personnel avec Macky Sall et au fond de moi yéenewuma ko lu dul jàmm quand di dis yéenewuma ko lu dul jàmm su ma sañoon dina jeexale kayam gi ci dal ak jàmm noo xam dina mën a dem ci dal ak jàmm ba mën a am beneen carrière loolu c'est ça n'engage que moi sa c'est au plan personnel affectif yéene yéene boobu yéene naa ko loolu ça n'a rien de politique ku ci nekk sa xol voilà je je sais que Sall man mënu ma am à ses côtés ma am dans un gouvernement Macky Sall voilà mi ngi noon mais yéene naa ko mu jeexal ci jàmm ci dal mu mu jeexal kayam gi noo xamante ni su ëllëgee dina mën a am une autre carrière au niveau international li Abdou Diouf am loolu dama ko koyee moo tax mais loolu moo ñu ciy dimbali moo ciy jàppale boppam ni mu ñu dimbalee jàppale ci boppam mooy mu xam ni. noonu mu ko waxee woon julli gi ah ñaari ràkk la ñaari ràkk yi mat na gis nga réew kenn du ne man la rekk wala réew mi day yàqu loolu adduna ku ci musa doxe noonu suñu borom wan na la ni adduna du doxe noonu amul kenn mënul jël sa bopp rek nga jël ab réew lëmm nga teg sa jëmm ci kot ju tekkiwul dara ci kanamu askan ni man la wala du dara loolu amul histoire musul doxee noonu histoire musul doxe noonu donc am na lu mu fi def am na lu ci baax am na lu ci rafetul loolu mooy dëgg taxaw fii ni Macky Sall deful dara ci dëkk bi ku koy wax it xam ni politique ngay wax am na lu mu fi def bëri na aussi lu rafetul ci doxinalam surtout au plan politique ak wàllu gouvernance à ce niveau gunge ko mu jeexal ci jàmm dal organiser élection yu libre transparente inclusive la responsabilité de kan moo koy remplacer du moom du responsabilité moom responsabilité am mi ngi yam ci réew mi da ko hérité ci Senghor ci Abdou Diouf ci Abdoulaye Wade ci dal ci jàmm ñooñu la ñu hérité réew mu mën a jël réew mi jox ko ki koy di ci dal ci jàmm moom mu dem nekk ci yeneen i yitte loolu mooy responsabilité donc mais responsabilité kan moo koy remplacer su fi jógee responsabilité boobu responsabilité askanu Sénégal moo tax vraiment comme troisième mandat ñu koy tiit ak li mu indi ci ay jafe-jafe ci Afrique soo xoolee Côte d'Ivoire la fa dee ci mbirum troisième mandat soo xoolee Guinée la fa dee ci mbirum troisième mandat soo xoolee Burkina Burkina bii ñuy wax tas à la base c'est Blaise en 2014 les gens l'oublient c'est c'est la base de la crise et je pense que Macky Sall ak carrière politique bi mu am ak fi mu jaar am na loo xam war na ko sauvegarder ñu ko wër aussi war nañ ko ci jàppale man de ci côté boobu laa koy laa koy invité parce que fi fi ñu jogee ci ay fitna ci réew mi très kenn mënuñu baal ñun la classe politique benn xale ñàkkaat bakkan ci ay histoire troisième mandat loolu personne mon cher ami la vie elle est sacrée mësuma gis kuy créer dund mësumaa gis usine bu ñuy créer dund ku ko xam na ma ko indil mësumaa gis bakkan bu fu wadd ñu ne nañ ko yóbbu ci usine sangam wala médecin sangam day indi waat bakkan mais on n'a pas le droit de jouer avec la vie de notre jeunesse la vie elle est sacrée elle est sacrée et je le répète elle est sacrée politique dara taxu ko jóg lu dul defar dundu doomu aadama jàppale dum doomu aadama ba dundu doomu aadama gën a boo demee ci bible bi xam fu Jésus di wax ni ah man de j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger bi ma xiifee da ngeen maa jox male lekk eu soif et vous m'avez donné à boire vers boobu mi ngi ci Matthieu J'étais malaat vous m'avez soigné. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Il parle de quoi xiif mar feebar solo ak ku ñu nekk ci fitna ñu tëj ko prison mais loolu mooy politique jox nit ki mu lekk jox nit ki mu naan ndox mu set faj ko wodd ko soo déggee wodd ko mooy wodd ko ci yére mais wodd ko ci ak logement parce que nit bu amul logement il est dans la nudité ak j'étais en prison vous êtes ak ay droit ay droit lii mooy politique génnul la neen mais politique bu respecté loolu lépp mooy lan muy politique day dimbali doomu aadama ngir mu dund kon politique warut a jël bakkanu doomu aadama su politique jëlee bakkanu doomu aadama mooy li tubaab di wax on est dans la nécropolitique on est plus dans la politique on est la nécropolitique politique buy rey boobu politique nag mooy politique bu bon bu baaxul mais vraie politique day tax askan dund nooy am ay droit lekk naan faju solu am ay droit loolu mooy vraie politique vraie politique boobu la ñu war a gën a tabax ci dëkk bu mel ni Sénégal ci Afrique ba ndaw ñu duutuñu duggati ci ay gaal wala suñu jigéen yi di accoucher ci ay saret wala ay xale yoo xamante ni dañuy jàng ci ay ay abri provisoire ci taatu garab dara dara waru leen xam naa dafay bokk ci seen programme <laughs> seen parti ci élection présidentielle bi nga xamante ni fa lañ jëm 2024. monsieur monsieur le maire euh, mais aussi tey am nga ay ambition présidentielle yaa ngi koy wax gannaaw maire poste bi nga xamante ni moo gën a kawee euh, li nga xamante ne moom ngi sedd tey président de la république la élection présidentielle lañ jëm 2024 foo leen toll ci wàccaay yi euh, ci parti bi. mais être président de la république pour moi c'est pas une ambition être président de la république pour et président de la république comme ni ma la waxee être maire pour être maire pour enrichir un CV moi ne m'intéresse pas du tout mais dans ma position de maire dama gis ni suñu dëkk yi mën nañ changer suñu réew yi mën nañ changer le gouvernement par de sept mille milliards pour le prochain budget nous à Thiès. foo génn ci àdduna bi Thiès ña ngay liggéey on peine à mobiliser un milliard moom laa doon wax ce matin aux journalistes mais ah, si j'avais cinq milliards nit ñi quitté l'Afrique ñëw di seet si la di seetaan si Thiès la ville de Thiès je veux dire saa lu tax may wax loolu suñu réew yi war nañ ko mën a tabax war nañ ko mën a tabax mën nañ ko tabax am nañ ay moyen tabax ko ci dal ci jàmm ci respect de l'autre ci respect de la tradition de notre culture ce besoin de changement là il est là et c'est possible de satisfaire ce besoin de changement nous pouvons aider notre jeunesse aider jigéen ñi aider njàng mi suñu dëkk yi développé gis nga Singapour par exemple bi ñuy dem indépendance ñu nag ñoom ñoo yemoon ci ndóol la ñu nekkoon ñoo amuñu sax suuf amuñu sax ressources ñu ñu am alliété yi ñu am amuñu aujourd'hui Singapour est une référence aujourd'hui voilà mon grand rêve pour le Sénégal dans les dix prochaines années faire de telle sort que Sénégal soit une référence mais ça va moins de la politique politicienne la politique politicienne ne nous amènera nulle part nulle part et arrivé à un moment ñu teg politique politicienne jël les meilleurs Sénégalais les plus intègres partout dans pos postes yi ñu war a teg ku ci nekk place ba nga war a ñu mobiliser wu ngir tabax et je me suis rendu compte que c'est possible les quinze mois passés à la mairie de Thiès mu wan na ma ma gis yàq-yàq yu nekk ci réew yi xaalis bi réew mi pasar pasaree yooyu suñ ko jëlee ñu organiser wat ko mën nañu tabax Sénégal bu bees moo tax may lance un message à la jeunesse non un message de désespoir non non non non un message d'espoir espoir man dama gëm Sénégal bëgg Sénégal jàpp ni mën nañu tabaxaat Sénégal ci dal ak jàmm mën nañu indi ay changement ci dal ak jàmm gis maam Cheikh Ahmad Bamba ak Seydi Hadj Malick dañu indi ay changement yu majeur ci Sénégal on papa peut pas être plus révolutionnaire que maam Cheikh Ahmad Bamba ak Seydi Hadj Malick mais stratégie intelligence dal jàmm boobu ci lañ tabax seen projet de société ba créer ñu beneen Sénégal y a Sénégal avant Cheikh Ahmad Bamba ak Seydi Hadj Malick y un Sénégal après Cheikh Ahmad Bamba ak Seydi Hadj Malick mën nañ am ay changements yu majeurs dans nos pays ci wàllu njub ci wàllu transformation ci wàllu lutte contre la corruption ci wàllu dëgg ci wàllu fexe ba ku nekk nga jot sa wàll ci réew mi mais suma projet boobu de transformation du Sénégal de modernisation du Sénégal fexe Sénégal def un bond en avant qualitatif maa ngi ko bëgg a jaaree sur les chemins de fer fexe ba chemin de fer wër Sénégal relancer le chemin un plan mars euh, Marshall chemin de fer mënuloo tabax dëkk sans le chemin de fer mënul ne c'est pas pas simplement Thiès c'est la capitale du rail non non non y' a pas de pays développé sur le chemin de fer mënul ne bu la ci kenn nax y' pas de pays industrialisé sur le chemin de fer mënul ne et au-delà du plan au plan au plan social regardez chemin de fer dëkk yi mu jaaroon yëpp Rufisque Dakar Rufisque Thiès Sakal Louga Saint-Louis Guinguinéo Godias gojas ba ba ba ba ba Mali dëkk yooyu yëpp tey jii soo dundalaatoon chemin de fer. dëkk yooyu yëpp dépendront du chemin de fer ñaata xale ñaata junni junni junni junni xale ñoo ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci ak dëkk yooyu dañuy dañuy dekki waat au plan économique mais doo ci yem da jël chemin de fer nga gën ko dugal ci biir Sénégal ba biir Casamance vous pensez que aujourd'hui bu chemin de fer amoon Casamance xoolal li fay yàqu ci ay mango xoolal li fay yàqu ci ay madd li fay yàqu ci ay fruits il faut parce que da ngay wax autosuffisance alimentaire da ngay bay mais boo bay il faut il faut il faut transporter il faut d'abord transporter avant ngay dem industrialisation je pense que le mon plus grand projet à part la formation l'éducation la citoyenneté parce que yooyu pour ñu tabaxaar tabaxaar suñu dëkk mooy un plan Marshall chemin d'affaires parce que jàpp naa ni sa va transformer le Sénégal et dina gën a intégrer le pays dina gën a intégrer le le pays parce que soo xoolee cassures yi am sax plan du pays mooy dëkk yi nga xamante ni ni chemin d'affaires jaar na fa côté yooyu ñoo gën a articulé ak côté yi nga xamante ni chemin de fer jaaru fa ils se sentent toujours exclus wala il y toujours un autre Sénégal à côté donc yooyu yëpp suñu suñu suñu yéene la yoo xamante ni ñi ngi ciy liggéey avec le projet Guelwaar bu bu ambitieux ay grands sénégalais partout dans la diaspora ñu ngi ñuy rapproché wu ñu ngi ñëw dans dans le parti je reprends la les tournées nationales Euh, euh, la semaine prochaine juste après la la tabaski donc am na région yu bëri yuñ defoon kaw Kaolack euh, Diourbel une partie de Dakar une partie de de de de de Mbour et une tournée internationale boo xam ne defoon naa ko ci weer wee mais je vais faire les semaines à venir Matam dinaa def Louga dinaa def Saint-Louis dinaa def le département de Tivaouane et je veux construire la plus grande majorité politique et sociale au Sénégal dans la paix et dans la stabilité. merci beaucoup di ñaan feet gi ci ci ci jàmm ku ci nekk rek euh, di la ko ñaanal euh, yàlla defal leen jàmm defal ko seeni njaboot yëpp aussi di ñaanal waa Thiès donc euh, bu baax ci feetu jàmm aussi merci beaucoup